موسى خادم الخديم لمن هوى تخدم الخديم يا سائل يا انساب تعظيم يوم خروج شيخنا الخديم من دارياتنا بمكة بإذن خالق البرايا الباري خرجت يوم سبت زامل اثر لخدمة المختار في سار السفر taarix ba mooy junne ki ñetti téeméer ak fukki at ak ñett lim bi lee wóor su ngeen ma dégloo su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ngir ñi nelaw gumbay njàccaar تنجن نبدم من كو خمو لاجول كو خم خاو مولايام كو توبتو يالا نتوب وايام مالوكا دلبم كو خلفلايام ننجيما توب يالا توب نيقلام تجيما دو سيطاني خمين دوغلام تجيما راي راي لرجال لاي تجيما راي لكل جان لاي الخير في المختار والمختار لا في الذي نفوسكم تختار خداكم من الإله نور سرين بامبا جوكو كرة لجند نور خداكم من الإله نور باي سرين فالو مبكي مو جوكو كرة لجند نور مانغل زيار باخ yeah, yeah. Everybody ndax Cheikh Ibrahima Fall mooy baabu leer mooy bunt bi nga xam ne ci la ñuy jaare doo rekk ci borom Tuubaa kon bu ngeen wootee bis bi mu xam ne sëñ Tuubaa rek ñu dama bokk ñi fi nekkal maam Cheikh Ibra Fall mu ñëw jaajëfal leen seere seeni liggéey ndax leetal def loo ca mën a leb ak loo mën a def ci biir fokk mu am adresse boo xam ne bu ñu yëree ginnaaw leetal ko xam ne bi yeggee foofu nag bu ñu ko teppee ba xool la ci biir rek door a xam la ci biir waaye boo loo mën a def ci biir rek amul benn adresse boo ko joxe ne ko joxeel ma ko rek joxe ko dana xaw a doy waar lool kon service bi rafet na ci jox bu baax am na xel mu dal ndax seexu bi nga xam ne moo ñëw di ko seere si sëriñ bi nee na mu ngi sant bu baax mu ngi leen di gërëm bu baax mu ngi leen di ñaanal ci dara ji Cheikh Ba yàlla na leen ko yàgg taxawee te mu yàgg ko jiite yàgg ko teewee ndax nee na liñ def moom day gën a dalal xel lool ndax daa mel ni foofu njaboot di daje rek taalibe yi daje ñoom rek lañ fa daje rek ñooy seen sàmm ñooy seen wasal ñooy seen gàmbe kon nag fu ñu fi dem rek fekk fa lu mel nii seen xel dina dal seen xol dina seet ndax dañuy daal di xam ne ngi ci la gën ndax la gën mooy liggéey sëriñ bi rawatina bis nga xam ne nag yàlla ndogal na lu nu baax la rek bis bi la ko la lu nu baax la nu baax la fan yi rek doon ko baax la muy digal loo xam ni moom lépp moo ko digle kenn digal kenn joxewu ci digal gannaawoo moom moo fi ne joxe ko digal wane nañ koy defee wax nañ koy defee ñu di ko yokk nag di ko yaatu ba mu egsi dañu wax ni soldat saa bu jubee rek foofu mu leen kon mel ni mooy safara yi ñu def rek. mooy dañuy yëg yu ni rek am na bis boo xam ne mu ngi ci kanam te egsi ñu war koo teeru war koo dalal war koo ganale war koo guddi bi dellu kon nag loolu moom sëñ seex ci maamu doon ko amee ci lañ ko xamee kon moo tax su mu fi dem rek fekk na ne ko def rek daa daal di xam ne ñun ñu ngi tool maam wax kon amee na leen kenn amee na leen gërëm amee na leen ak ñaan amee na itam soññ bu ma leen ci soññ ngir gën ci góorgóorlu bu baax lay góor a gi nag mooy gën gi di seelal tey rafetal te bañ koo jàppee puukare bañ koo jàppee am bopp ni nga ko jàppee rek liggéey sëriñ bi ñu ko liggéey jàppee liggéey sëriñ bi rek te doxee ko ni ko sëriñ bëgg rek danañ ci daje tawfeex sëriñ bi jàpp ne tawfeex rek am na ndax yëngu li nga xam ne ñu ngi yëngu jëm jëm kon sëriñ bi nee na mu ngi sant bu baax mu ngi leen di gërëm bu baax mu ngi leen di ñaanal yal na ci daje gërëmul maam Cheikh Baye Fall kon maam Cheikh it nag toogay ñu ngi lay sant bu baax ndax it nag buñ doon def rek te gisuñu ku mel ne yow day xam ne dañ doon def rek. waaye nag li dëgg-dëgg daaj na nag mooy sa jëm di teew ndax teew na seex ba te përki démb sa doomi baay bi teew ci di jëw si kër suñu mbooloo bi dë da cee waxoon moom përki démb rek wax bu gar du am njëriñ du ëmb lu bari mu sëñ Moussa Mbar danoo waxoon përki démb nii fu ngeen fekk ñu dañuy liggéey sëñ Tuubaa mbaa ñaa ngi dara ci sëñ Tuubaa te gisoo ca daray seex ba denn na ci seex ba génn ci jëmmalu seex ba génn xam ne ñooñu jëf ji lu baax lu bon nga xam ne loolee ñu def du lu baax leen yoon sëñ Tuubaa yi lu waay def te jëmmaloo ci seex ba denn ci lu génn na nga xam ne lu baax lu bon lay kon sunu xel dal na sunu jarale nga sëriñ bi ci sa teewaay bi neewal naa la sëñ maam Cheikh ñu dañ lay rek ndax mu tax lu gën ñaanal da ngay Cheikh Ibra te yàlla nun la nga seetlu sa bopp ndax fii ci sama rek nga defee lépp wàcce sa ko ba tolloo noonu ñëpp ba mën a ànd ak ñun ñëpp mën a wax ak ñun ñëpp mën a jëflante ñun ñëpp di ñu wéet ci wet bu nekk te it kenn ku la gën moom amul boo xam ne boo waxee ñaari ñaar sa diggante seex la doo doo ko ñetteel kooku seex la kon sant nañu bu baax nuyu ci ñi yàlla booleeg yow ak sëriñ yi ñu yàlla guddal soo fan wéeral say cër te. barke maam Cheikh Ibrahima Fall bu dindi wàcc sa kaw muy la maam Cheikh Ibrahima Fall doon jëriñam taalibe bi yàlla na ko jëriñam kon jërëjëf yëpp sax nañu baax àll nañu baax waaw ci waaye nekk rek nga tàllal ko te wax xaajul te fas ci leen bëgg sëñ bi nag màggal gi dool bi ci ñaanal bu baax ñu dem ci ak jàmm ànd ak jàmm jële fi jàmm ànd ak jàmm yóbbu jàmm am fa jàmm ànd ak jàmm jël si jàmm kon daal si maam noonu ko fasoo ndax nag yittewoo la xam naa la def moom xam ngeen ko xam nan ko te jàpp naa loolu noppi gi ndax koo xam ne bis bu jag yaa ko nekk sa bis doxul ci yoon loolu ñëpp daal koo xam ne la la la